alxaaji Baara Mbàkke lañ ko gën a miinee ngir gis ne ku taqoo woon la ak yoonu màkk wi nga xam ne wax nañ ne lu tollook ñeent fukki yoon ak juróom-ñaar dem na ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke Falilu ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee di Serigne Mouhamadou Lamine Baara mu Serigne moo ko taxaw ba mu watt alxuraan mokkal ko bind ko Serigne Mouhamadou Fadilu Mbàkke méngoo ak tarbiyaam mu doonoon koo xam ne la mu royee woon ci way juróom wu tedd wa Serigne Falilu Mbàkke digganteem ak Serigne Touba mooy dafa jaay ak njuréelam jëndee ko ak taalibe digganteem ak Serigne Fallou di koo xam ne cofeel gi mu ko ëmbaloon kenn ku nekk xam na ko di koo xam ne nag taxaw na ci wetam ay taxawaay yu ràññeeku mu liggéey loo ko liggéey yu am solo yoo xam ne laaj na kóolute ak Pastef ak njàmbaar di koo xam ne itam ku jege woon njabootu Serigne Touba gi la digganteem ak saal Saliou Mbacké wax nañ ne juróom-ñaari at nekk na ko di ko dawalal naka noonu Serigne Abdou Khadir Mbacké mi nga xam ne moo doon ilimaanu jumaa ji saa buy dikk ci ajuma moom lay àndal ba màkkatal mu karam sax bi muy aji bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko gunge ginnaaw bi ñu ubbee jumaa ji ci juróom-ñaari fan ci weeru juin 1963 bokk na ci ñi nga xamante ni buñ doon seet ëpp lu ñu julli ci jumaa ji te manqué wuñu ajuma dañ ko ci limaale cofeelam ci Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké taxoon na bi mu doonee xalifaam bis bii di kasu rajab mu yóbbu ko ci diggante boo xamante ni ku nekk gis na ko bi mu amee juróom-ñetti fukki at ak ñaar dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2007 ci la doon xalif général des mourides wuutu Serigne Saliou Mbacké doon sët bi nga xam ne moo jëkk a toogal Serigne Touba ci xilaafa gi di juróom-benneelu xalifa di koo xam ne lépp loo xamante ni aju na ci yoonu murit taxaw na ci soññee na ko te itam kenn jiituwu ko di koo xam ne ku yaatu woon la mën a jëflanteeg ñëpp diir bi mu fi def di tolloog fanweeri weer liggéey na ci Serigne Touba liggéey yu ràññeeku jumaa ju mag ji tali yi nga xamante ni mooy tali dëkk bu tel di bii di Touba ak itam nag saa su nekk soññi gu mu daan soññi taalibe yi dina xamal ne mboolem lu fi nekk yéen rek yéen ko fi def yàlla nañu ko suñu borom fayal yokkal ñu ay leeram ci darajey Cheikhul Khadim ak darajey Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké sëriñam bi nga xam ne moom la amoon ci moom cofeel goo xam ne kenn nattableetu ko